bàyyi ko. waaw grand garçon moom il aime bien le président de la république. <laughs> trop bien waaw. <laughs> mais wax ne ñu nekk ci administration fiscale bi c'est des éléments essentiellement de Pastef que ñoom ñooy xeex Bougane bon loolu aussi grand garçon nga baal ma loolu yomb na trop yomb na oyof na. lu tax mu ne na oyof na Askan Wi c'est récent biñ ko tegee yàggul ñii bi ñuy commencé. seen redressement fiscal yi ça date depuis janvier je crois boobu ba léegi Yewwi bi Wi c'est tout récent donc mënuñu méngale vraiment et puis encore une fois de plus même su fekkee ñi fa nekk sax ils sont encartés Pastef bañ tooga tooguñ fa dans l'administration tooguñ fa Pastef su fekkente ne tey waa DGID ñi nga xam ne ñoom ñooy def seen i mission seen équipe di yóbbu di yónni gars yi ñuy dem ci entreprise yi ñoom seen wàllu bopp gis nañ ne ñii lañ leen yónni jaarul ci yoon ñoom dañ war teg ci yoon donc dire que ne waa Pastef fi ñoom ñooy xeex donc ñu bàyyi noonu saa ça signifie ko aussi que état bi peut être loolu daf ko arrangé loxo mi ngi si biir affaire bi se est beaucoup plus sérieux que ça c' est à que en réalité li ñuy wax boobu léegi acharnement boobu buñ ko génnee ci waxtaan bi loo ci mën a mën a wax mooy c' est que c' est un acharnement du leneen que bëggaan yore leen xaalis yorelu leen mais il y a de l' acharnement xam acharnement fu mu fu muy fu mu commencé demet mooy nga bokk mbir entreprise bu bëree bëri bëri ñu la la ci pet yow kese teg ay daan ci sa kaw même su fekkee ne tu es fautif et trop trop souvent aussi j'entends vraiment l'hypocrisie de beaucoup de sénégalais waaw waaw waaw du du du man du man kese xaw ma bokkuma ci moo gën waaw d'accord mais ñun on est une entreprise sénégalaise on les mêmes difficultés quotidiennes que les autres on ne peut pas s'extirper de ces de ces difficultés li dal ñeneen ñi moo dal suñu kaw. ñenn ñi difficulté yi ñuy am ba ñu fay seen fisc normalement des médias e doit avoir les mêmes problèmes financiers ba nga xamante ne du war a war respecter à temps heureusement que ñoom bi ñu taxawee ne ñu bañ ko bëgg ko fi ñu taxaw ñu fa taxaw ne ñoom fay nañ et ils ont leur quitus fiscaux ici quitus yi mën nañ ko lire après. tout à donc lu ñu mën a wax mooy que acharnement moo am ci mbir mi c'est loolu nag moo war a dakk <laughs> Omar wax na ko léegi c'est-à-dire boobu dafa war a dakk parce que nag loolu c'est pas nouveau hein, avec Macky loolu on l'a connu sous le régime de Diouf on l'a connu sous le régime de Wade et ça continue avec le régime de Macky Sall c'est des gens yoo xamante ni président yi ils sont allergiques à la presse bi ñu jàppee ñoom sax presse d'opposition parce que seen ligne éditoriale bu fekkee ne méngul say schéma de pensée nga jàpp ne kii daf ma contre daf ma contre donc noo ko mën a faagaagal ngi mais fii gis nañ fi ay entreprise yoo xam dañu leen attaqué en plein jour dañu leen attaqué woon c'est des du gouvernement sous le régime fu mujj mujjul fenn te pourtant on a identifié les commanditaires mujjul fenn. c'est-à-dire cest ko dire que aujourd'hui tey ñoom li ñuy mën a poussé bëggaan mooy va t'accointer avec les gens du pouvoir sa jàmm na ñooy parce que ñu bëri dañ naan tey bu fekkee ne yow da nga demoon ci pouvoir bi li la dal la dal. mais kon kon day niroog waxtaan bi nga xam ne moom la Omar Diouf Fall di woote. mais ça c'est pas un état ça c'est ñii tey nga xam ne ñoom ñoo nekk au conseil d'administration di méngoo di di di di gisee ñi nga xam ñoo yore l'administration fiscale am na ay procédures yoo xam ne suñ ci doon jaar normalement ba léegi. Mhm. wax ji du egsi fii. Mhm. te li ma jàngatee waa conseil d' fi ñu war a jaar yëpp ba ba léegi fi ngi ñu ngi jaar. te xam nga nag gis nga acharnement bi ndax ma la ko mhm. soo xoolee équipe bi nga xam ne ñoom ñoo nuyoon au niveau de BOS def fa seen vérification yooyu ñooñu bu ñu paree foofu ba gis ñu fa dara 15 jour après c' est la même équipe même équipe boobu moom la ñu yónnee au niveau de médias xanaa ne serait-ce que par éthique xanaa nga changé inspecteur yooyu ñëpp bu ñëwee saytu gisuñu. yow nga bëgg a jël recommander la même éthique ne léegi jóge leen ci entité bu ñooñu c'est-à-dire léegi dem leen au niveau des médias la même équipe et ces gens-là viennent encore funer ici xanaa ne serait-ce mais mais quand même quand même précision ah. mhm. parce que je crois que dans un groupe de presse il y a des structures qui sont juridiquement distinctes le service des impôts peut venir visiter BOS ci suufi dara ngeen def déclaration nekk en règle ñu dem Zik FM gis ne qui est une entité juridique dans le groupe n'est-ce pas gis fa leneen mun ngeen a def déclaration mu bañ a conforme aussi ak ñoom li ñu kii mais en tous les cas l'administration elle est là pour les administrer am déet ñun ñoo ko fi tax a toog entreprise yi ak citoyen yi fiscal comme l'administration la santé ak yooyu mais xanaa nag war nañu mun a wax ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy nekk à leur service d'accord à commencer par le sommet jusqu'à la base parce que ñëpp ma ma leeral tuuti waaw euh, gis nga euh, même tey y a une déclaration je crois bu ñu benn C'est un article de presse que j'ai vu. Et c'est signé du soleil. Certainement, ça vient de Yahambaye. <laughs> Certainement, ça vient de Yahambaye. boo gisee c' est manipulatoire d' abord xamul tax et il y a de l' intoxication là-dedans li ñu wax violation du secret bancaire parce que on est allé jusqu'à dire que dans les codes de des médias il y a eu que 4 millions. 4 millions ce qui est ce qui est extrêmement grave donc déjà loolu c' de l' c'est des infos yoo xamante ni divulguées dans la presse te je crois que ñi après peut-être dinañ xool quelle est la suite judiciaire à donner à et en plus de ça ce qu'ils ont dit que ne quand les gens sont venus la mission la fiscale bi ñu ñëwee au niveau de. dañu on les on les a conduits ce qu'il faut on leur a même réservé un bureau là et les gens disent que oui dañoo dañoo dàq inspecteurs yi moo tax après ñu ñu dal seen kaw. Mais il faut dire la vérité. Tu ne peux pas gérer un journal national, quelle soit ton appartenance politique, mais par éthique, il faut dire la vérité, il faut raconter ce qui est, ce qui de... que sur Mais quand même, on ne peut pas invoquer, on a est Vous dites que c'est faux, je vous crois. Mes filles, on a vu un ministre de la République et conduire une mission officielle d'un service de contrôle. may ma ma ñëw ci loolu. loolu. <laughs> mais rien ne s'est passé. non dafa ndànk loolu kay non xam nga xam nga il faut que wax ji. non non attends ministre Moustapha Diop. qui a renvoyé comme des malpropres. des de la cour des mu dax leen mu ne vous n'êtes pas des magistrats de la cour des comptes mais vous de de règlement de compte dax leen comme des malpropres jour booba j'ai dit jour booba keroog Macky Sall dafa waroon tekki ndomba tànk kii di Moustapha Diop parce que ña fa dem yóbbu fa seen coobare bopp mais on l'a pas fait ñii ñuy wax fii ne dañ leen a éconduire j'ai dit que absolument c'est absolument faux on a éconduit personne ña fa ñëw j'ai on leur a même aménagé là-bas un endroit bu xam fa la ñu mën a toog def seen liggéey ba mu jeex et ils n'ont pas aussi l'honnêteté de dire que lim yaa xam mbay ñoom li ñuy wax au niveau du en tout cas cet article venant du soleil là que c'est absolument faux mais c'est signé par qui moo ko signé particulier non a mis le soleil dañu ñoom dañ ko def ba pare def le soleil man ma jàpp ne soleil lui c'est le patron moral du soleil donc loolu moom mënu ci génn et loolu c'est extrêmement grave te wax xam wax ji li gason doon wax léegi wax ji fi mu toll nii demeen noo xamante ni ku ci mënul wax luy defar bul ci wax loo xamante ni c'est-à-dire non seulement da ngay tu intoxique les et en plus aussi da wax wax yoo xamante ni da ngay hmm. gën a nax sa xelu nit parce que article boobu c'est à fin Mhm. pour wane ne des médias ñoom ci li ñu nekkee ils ont tort que des médias ils ont menti que des médias comment ils font pour payer leur pour pour payer leur salaire. alors que y' a 4 millions dans 50 comptes. mais moom mi nga xamante ñoom ñoo yore entreprise du soleil ils ont des difficultés pour payer leur salaire alors que c' est ñoom waa soleil yooyu dañuy am difficulté xamal li garçon doon wax léegi sax naan yaa xamaat ah, non loolu c' loolu c' est plusieurs années yaa xam moo bi ne daan ne tout simplement wooy parce que soleil ils ont pu trouver un moratoire ñoom sax dañuy fay donc wax des ñoom ñoo xam ñoom en tant que entreprise étatique publicité yi am ci presse bi yëpp ñu jël ko état di leen fayal seen i salaire ñoom ñu dem ba am problème fisc su ma doon magi su ma xëyee ñoom ñëpp ma dàq leen ci biti mhm, bu su ma xëyee ma dàq leen ñoom ñëpp ji parce que c'est des c'est des incompétents donc ñoom su fekkee dañu am ay moratoire parce que bu fekkee ne des médias ils sont dans la légalité je crois que il faut les retrouver sur le terrain la légalité mmh. le principe de la contradiction n'a pas été respecté dans cette histoire là loolu il faut que les gens le disent ça n'a pas été du tout respecté d'accord mmh. alors Gabou Sarr euh, sànq Oumar Diouf mi ngi wax ni nañu waxtaan mais est-ce que waxtaan boobu mënati na nekk parce que yéen bind ngeen mais jusqu'à présent da amul sax retour. waxtaan mi pour mu pour mu dina jafe lool parce que on les a invités à un débat ñu waxtaan. ñoom faale wu ñu ñu ñaareel ba tey gis nañ dans une certaine presse euh, c'était c'était je crois euh, à la RTS il est sorti le directeur du recouvrement euh, de la direction générale des impôts mmh. et il parle comme euh, un infirme qui ne connaît même pas la maîtrise du dossier alors que il, a, dit que je ne maîtrise même pas ce ce dossier il, en tant que la direction générale des impôts est indivisible un responsable de ce niveau qui dit je ne suis pas au courant Mais ça prouve qu'on qu lui a donné des instructions, oui. on l'a instrumentalisé oui, et puis c'est tout. Oui. Mais, mais, mais nous donc, si un responsable à ce niveau, un directeur qui a été nommé par décret présidentiel, se trouve au niveau de dire je ne suis pas au courant, à qui on doit s'adresser? Donc nos courriers qui sont restés comme lettres mortes dans le tiroir, c'est normal. Ñaata courrier? a eu deux courriers. Le premier courrier, il y a un mois, on a adressé un en leur demandant de nous dire exactement ñaata lañ leen yoreel. cette, cette, ce, ce, courrier est resté sans réponse parce qu'il n'avait pas d'éléments. J'ai demandé au service comptable de faire une, la même lettre, de passer par voie d'huissier pour le